yëpp dañu war na merci beaucoup. dem. monsieur le préfet du département de Guédiawaye. Monsieur le représentant du maire de la ville de Guédiawaye, Monsieur le maire de la commune de Guido Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Monsieur le Président de la FENAFO, Monsieur le Président du RENADES, Monsieur le Président du Cercle des éleveurs de la banlieue, Monsieur le Président de Adam, Mesdames, Messieurs les Présidents des associations sœurs, Messieurs les parrains, Mesdames, Messieurs les représentants des sponsors, Mesdames, Messieurs les membres du CEP, Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi d'abord vous remercier de l'occasion qui m'est offerte de venir présider la cérémonie officielle de la cinquième édition du Salon de l'élevage du cercle des éleveurs de la banlieue. Je voudrais féliciter les 1360 membres du CEP et surtout les 206 exposants pour les efforts remarquables consentis pour aboutir au beau sujet de la l'ADOUM qui nous ont été présentés comme vous le savez, le potentiel génétique actuel du ladou, obtenu grâce à une sélection hardie, empirique certes, mais fruit d'un savoir-faire, est devenu indéniable. J'en veux pour preuve les résultats exceptionnels enregistrés lors des différents concours en termes de mensuration, de format et de croissance. Le mouton Ladoum est aujourd'hui utilisé pour l'amélioration génétique de nos races locales, en particulier les moutons du Sahel et les Dialanquais, à travers notamment les différents projets et programmes de développement. Il est même exporté dans la sous-région. Il contribue d'ores et déjà à l'émergence d'une filière ovine performante et la création d'emplois durables pour les jeunes et les femmes. C'est pourquoi les sélectionneurs de moutons LADOU jouent un rôle très important dans la mise en œuvre du programme national d'autosuffisance en moutons PRONAM, inscrit par le chef d'État, son Excellence, M. Macky Sall, dans le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré par 2A du plan Sénégal émergent. Je vous exhorte donc à poursuivre le travail en collaboration avec tous les acteurs concernés. J'en profite aussi pour demander aux maires de s'engager dans le projet initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons de Tabaski Imam, projet tripartite ministère de l'élevage et des productions animales, Association des maires du Sénégal AMS et l'ONG IFOR e International dont la deuxième phase de 50 qui cible 250 communes va bientôt démarrer. La contribution d'autres partenaires, dont la délégation générale à, la protection sociale et à la solidarité, nationale, est également sollicitée. Mesdames, Messieurs, je relevé en ce qui concerne votre noble activité un certain nombre de préoccupations. Il s'agit notamment du vol de bétail, de l'alimentation animale, de la santé et de la caractérisation du mouton ladou. Il faut le reconnaître. Le vol de bétail persiste en dépit de sa criminalisation. C'est pourquoi le chef de l'État a instruit tous les ministères concernés à faire une évaluation de la situation et de proposer des solutions idoines. Dans les prochaines semaines, j'organiserai, en plus des mesures prises par le chef de l'État à travers la modification du code pénal et du code de procédure pénale, une concertation pour une action pilote dans le département de Thiès à mettre à l'échelle par la suite. Pour ce qui concerne l'alimentation, le contexte lié à la pandémie de Covid-19 avait déjà renchéri les coûts des intrants, dont au moins 80% sont importés. La crise en Ukraine est venu exacerber ces coûts. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour atténuer le prix de l'aliment bétail. De plus, dans le cadre de la souveraineté alimentaire, un important programme de production de maïs sera mis en œuvre cette année par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour pallier effectivement à cette problématique-là. Je pense que l'achat groupé au sein de vos associations constitue aussi une solution d'atténuation. J'estime enfin que le développement des cultures fourragères, entre autres, sous forme d'entrepreneuriat fourrager, est une voie d'amélioration de l'aliment de bétail. Pour ce qui est de la santé, la recherche pourra apporter sa contribution pour la connaissance des maladies de l'ADOUM et leur gestion. S'agissant de la caractérisation du ladoum, j'encourage toutes les associations et tous les sélectionneurs de moutons en relation avec les spécialistes, à travailler de manière inclusive et consensuelle sur la caractérisation génétique du labo. Aussi, j'ai instruit tous mes services compétents de vous apporter l'accompagnement nécessaire. Pour terminer mon propos, je félicite et encourage le président du CEP, Dr Ibrahim et son équipe, pour cette parfaite organisation et toutes les initiatives prises.

place bi jekk na li muy wund nag engagement bi nga xam set am di taxawal élevage di ko dooleel di ci liggéey bes bu jot lii lañu soxla les éleveurs du dimanche li ku ko gis da nga gis ne liggéey bo xamne du liggéeyu ben fan waaye liggéey bes bu nek la ñi ci occasion bi di partager ak yéen gis-gisu président de la république ci élevage. Oui, docteur Diallo, Sénégal, Rennes, nous sommes tous ci presque 18-17 millions d'habitants, avec un croix démographique de 3%. C'est ce que je veux dire. Le misal bi moy, wala limi wundu moy, besoin yi nga xamne at bu jot dañ koy am ci walu ndawal ak walu mew ñu gatcho ko waddu ci liggéey nak bes bu jot lolo tax président de la république mune pour ñu matalé lolu dafay mel ne une course besoin yuy York production nationale yuy York waaye vitesse yi beaucoup. ni besoin de di production nationale bi York mais la production nationale de mi La course boobu nag dafay créer actuellement une différence une gap boo xam ne liggéey bi ñu année après année mois après mois jour après jour nous réduire effectivement ce gap là ànd ko ak yéen nag mu nañu ba

parce que tay li ngeen di def dafa dëxuñu ci li ñuy wax filière bétail viande il faut ñu xamné ne fofu foofu loger ba paré lan la filière bétail viande soxla pour que filière bobu ngeen nek muy bétail viande ngeen matériel li nga xamné mom moom xaar ci yeen en terme d'aliments de, de de de de produits animaux. président de la république bi muy créé ministère bi ngeen seetlu bu baax route ministère de l'élevage Yamkia. ca ministère de l'élevage et des productions animales vraiment c'est une très grande vision du chef d'État une vision productiviste Madame la production il faut qu'elle soit soutenue elle faut il faut qu'elle soit durable pour pouvoir effectivement couvrir nos besoins en matière en produits animaux donc la vision premier cap elle est indiquée en mettant un accent sur l'alimentation alimentation foofu damay wax ne nit ak mala ñoo mala bu dundut bu lekul lim wara lek a kulli xaal li ñuy séentu ci mom ci mu jox ñu ko ci ndawal mu jox ñu ko ci mew duñ ko mëna lolo tax ñi nga xam ne dañ ci nekk di ci liggé ak keneen ko xam sénégalais nga nga wara taxaw ne gis ne war nga nekk un entrepreneur dans le cadre de l'alimentation du bétail beaucoup de ci culture fourragère bi ñuy Quel est le discours du président de la république def le 3 avril Je suis cay jum ne war nañ dem ba matale sur la wax souveraineté alimentaire maanaam li nga xam ne moom lañ soxla ci réew mi ci yeneen xeetu ñam rawatina ci ndawal ak li nga xam ne la bokk fu muy jóge ñu mën ko matalé donc euh, li fi xew actuellement ñuy wax souvent aliment bétail d'abord foofu dama bëgg a leeral leen dund dundug jur fourrage d'abord moo ko fourrage ñax mooy dundal ak jur aliment de bétail c'est un complément alimentaire day ñëw mottali di dëgëral di suuxat waaye jar nañ war nañoo def suñ kem kattan

jur gi nga xamné mo nek ci Sénégal tay boko valoriser warna toll ci presque 2500 500 milliards lolou fu am ban secteur moko am fi ci Sénégal donc yeen ñi nga xamné yeen dans le secteur d'élevage, comme bi nek sen loxo parce qu'il faut qu'on réfléchisse maintenant en termes d'économie en termes de com. pour xamné li ñu yor ci secteur élevage du lu ndaw ñi ci nek également di ci liguey du ñu ndaw Lolo, en termes de perspective fay tax dana tax suma ci de la sama alal tay suba man na ci gis la ci sama la waye tamit ci gis la Sénégal manam fuñu la donc Lolo, alimentation bi nous ñu taxaw ci culture fourragère culture fourragère culture fourragère du haut de cette tribune du haut de cette tribune je lance un appel solennel à tous les maires du Sénégal, comme le, président de la République l'avait fait, depuis la journée nationale de l'élevage à Kungel, mm. il avait déjà dit, ça fait longtemps. Messieurs les maires, jàppale les moyens qu'on xam dafa lancer une culture fourragère ngeen jox ko si nga xam ne war na koo mën a def buñ fourragère koy def dafa ndax mën nañ koo def ci nawet profito ci taw bi yàlla bi bu ko defee nga góob ko denc ko boo demee ba ñax ci amatu boo ñu seer wala lenn wala lenn nga ñax boobu ndax fer ñeent ya ca nekkoon ba nga góobee am na façon dencin woo xam ne boo ko dentee ci ker boo ko dinaa ci ker boo ko sudaatee dafa mel ne ñax gu bees loola nag bu sénégalais deuxième levée euh, la crise nous a le président de la république dogal ministère de l'Agriculture et de et rural taxawal na programme boo xam à terme war nañ ci année produire tonnes de maïs loola pour des besoins il y a 600 000. pour le président de la république il y a des di pour que les mii ñu 000 tonnes sont attendues cette année Nous devons continuer parce que en fait le contexte international a changé il y a 10 ans produire du maïs au Sénégal était plus cher que de l'importer le contexte mondial a changé tey boo xoolee les bourses céréalières bés bu jot kentaalu maïs ak bés bu jot waxuma semaine bés bu jot day yokk daaw ci mois d'août maa ngi xool les bourses céréalières États-Unis daaw ñi ngi commandé Chine ak état ak ak ak ak vingt millions de tonnes de maïs est-ce que mën nañoo buuxanteeg ñooñu nañ def loo xam ne mën nañ ko damay woo di encore deuxième résolution du haut de ces tribunes pour wax sénégalais yi ñu def ci sen lox dundal jur gi kom kom bu bareñ ci alal bu bareñ ci kuy wuti fo def sa alal yoon ngi non pour nga mën cee def sa alal parce que cheptel bi maté nako ñi fi nek di ci liggéey ci élevage bëgg nañ ko soxla nañ ko ya marché qui est important nañ ci djublu

ñaareel ponk bi nga xam ne président nee na nañu ko def pour que ñu mën a soxla suñ suñ jur gi mooy santé animale santé animale foofu aussi nit ak mala ñoo yem docteur Diallo wax na ko léegi lu bëree ngi dee ndax dañoo xëy na waajalu ni ñu war yore santé animale prévention bi am na ci lu baax lu bëree bëri donc ren ren président dépassé na ci ñàkk jur loo xam ne musta am ci Sénégal d'abord à l'antam dafa jënd de ñuy wax ab lieu ISRA gis nga tay garab yi nga mom Sénégal buñ ci amone capacité def faire tay temps bi ñu def ben mën nañ def machine jar un milliard six cent mën nañ ci def même temps te garab yi ñu parce que système méthode bi koy defaree leen mooy tax nga mën ko garder par une longue année ay ay at yu bari donc loolu moo tax ren résultat yi ñu am ci vaccination mosuñ ko am président xam na ne foofu la mu def ci loxo amélioration génétique mooy lii ngeen di def moo tax ñun ñëw fi tey loola nag commencement la am na fu ngeen àgg xam naa ne en tout cas président de la république yaakaar naa seeni xel xam na ne seen xel day màcc pour que li ngeen yëkkati seen bopp te kenn jàppaleen ba ngeen agsi fii ngeen gën a tàllal xel yi gën koo ñawal pour que ñu am beneen perspective boo xam ne day élargir lii ñu def am na ñu ko wax fii léegi tabaski bésu tabaski marché tabaski daanaka ak na cent milliards de francs parce que ci lu gàtt gàtt gàtt gàtt rek gàtt gàtt rek ñu ngi soxla am na ko ko wax fii def naa ne Fadilou moo ko wax te muy dëgg huit cent mille xar la ñuy la la la ñuy eh, rey ci tabaski gi bu fekkee noonu benn xar bu ci nekk cent mille lay jaar du quatre-vingts milliards ci xar bu ndaw huit cent mille xar yi ñu rey benn bu ci fekkee ne cent mille quatre-vingts milliards la te am na xar yu ëpp loolu donc le marché il est là yéen seen perspective seen màgg gis ngeen ab boulevard a ngi ubbeeku na nañu fexé jël ci laadum yu góor yi parce que jël ay laadum yu góor yu bari tek ko ci genn gett mais c'est des charges d'exploitation yu bari bari bari il faut aller dans le sens de rentabiliser les exploitations bokk na ci ñu jël ci xadum euh, laadum yu góor yooyu wut ay ferme dem ci xar yi nga xam moy suñu local ñu am découragement yoo xam ne am nañ jur go xam ne dana mëna ci ñi nga en tout cas le ministère est à vos côtés pour vous accompagner dans ce nouveau boulevard qui permettra en tout cas à ce que chaque jour ñu am xar yi nga xam ne terminer oui ay profité ci occasion bi di éleveur Sénégal

donc nous étions à deux points de l'autosuffisance effectivement en moto ça c'est un indicateur que nous suivons que nous avons construit et que nous suivons année après année pour mesurer évaluer ce que nous sommes en train de faire li nga dañ koy en fait c'est un travail de tous les jours ti bi jóge naa fa barki demb ñibbi si ñaari fan demal fa demb ma nga jóge Medina Ndiaye mais li nga li nga xamné mom la éleveur du Sénégal yi xëy na bu ñu nekkee Ndakaaru duñ koy xam mais dana bax peut-être que ak communicateur traditionnel ñu def ben caravane bu lépp weesoo ñu wër ci all bi xool éleveur sénégalais li ñuy ak la presse ñom bu ñu ñibbisee ñu jukki ci lañu gis

maa ngi le directeur de l'élevage danañ ko taxawal pour mën def caravane boo xam ne danañ xool les éleveurs la que lañ liggéey donc liñ ci waroon wax bari na damay rek dafa fekk ne dafa fort sama depuis 14 heures donc ngeen jégal mais lii dama ko naw chaque fois buñ ma wooyee may am kontaan te loolu di fi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. lu bëri mën nañu gërëm. léegi monsieur le ministre dañuy may fukk la tànn